jërë ngeen jëf mbokki euh, internautes yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu leen di euh, jaajëfal ginnaaw moom Serigne Mara Niass ba nga xamee ne yegg si ne fii ci Touba amal ak màggalam ba pare def na nag na nga xam ne rek noonee nag la ka tàmm di defee daal di ànd ak mbokki taalibe yi daal di amal waxtaan wu yaatoo yaatoo ak mbokki taalibe yooye daal di fay euh, jot a yëkkati ay kaddu mu daal di jëm nag ci ki nga xam ne rek moo di président Ousmane Sonko kaddu yooyee nag nga xam ne ni moom Serigne Mara Niass jot na ko yëkkati nag mu jëm ci président Ousmane Sonko muy kaddu yi nga xam ne nag kaddu yu neex neex la rek ci ñi nga xamne ni ñoo di patriote yi ak ñu ko bëgg ndax moom Serigne Mara ci yëkkati ay kaddu di xamne ne fi ak ay fan yu neew moom président Ousmane Sonko dina génn ci kasso bi kaddu yooyu ya nak di kaddu yi nga xamne ni mo di yas kaddu yi ya Serigne Mara ci nga xamne ni yëkkati ya ko sa ndage momé nak di xamne ne ki di Ousmane Sonko fi ak ay fan yu neew dina génn fofé nga xamne rek fa la nekk ndax mi di Serigne Mara sa mi nga xamne ni avant nga xam ne rek kii di président Ousmane Sonko waroon naa dugg ci kaso bi moom bokkoon na si ñi ko wax tey jii na nag génn bi dina ko wax nee na nag ah, ñi nga xam ne ni ñoo koy déglu nañu ko bind daal di denc.